jigéenu observateur yi femmes des observateurs des pêches maritimes ñun ñoo dajaloo li war a suñu ndaje mi mooy suñu li ñu war a jox suñu borom kër yi seen àq ak yelleef li nee war a jox am na vingt ans ay retard de salaire yu ñu am moom lañ leen war a jox moom la ñuy ñaawlu nag di ñaan monsieur le président de la république pour mu jàppale leen retard de salaire 82 ba 2002 ñu ngi lay amel ay salaire ñii génn nañu àdduna nii ma waxee yow nii nii nii am na kuy muuru ku jëkkëram génn àdduna amagul 4 mois ñi ci des danoo feebar am ay handicap te yooyu yëpp géej géej leen ko teg. danoo bëgg léegi ñu ñaan monsieur le président di ko intervenir di ko ñaan dañuy ñaan. billaay dañuy sarxu bu xamoon lu ñuy dund sunu kër ñun jigéen ñii may dem fay sàll bu xamoon lu ñuy dund dinañu jàppale. veuve la wax dëgg yàlla veuve yi sonn nañu. sonn nañu sonn nañu torop torop torop ñun ñoo ci gën a sonn. problème mu loyer da ngay fay sa sama doom yaa ngi ni liggéey bi c'est pas ça dégg nga da ngay toog di xalaat doo gis kenn kenn kenn ku dul yow ak yàlla ak say njaboot ah, man lu may ñaan mariam fay ak maki sàll nañ ñu jàppale ñun veuve bi sonn nañu xaalis boobu bu ñëwee ñu mun si sax même lu ñu si def même bu ñu mën tabax kër sax ñu tabax tuuti kër benn kër sax ñu tabax kër fu suñu njaboot yi